clinique 18 safar waa kër Serigne Abdou Khadre Mbacke samp ay bànqaasam ci Touba Mbacke ci weeru màggal wi atum 1440 dëppoo ak 2018 taxaw na temm ngir jàppale askanu Touba ci seen wér-gi-yaram ci njiitu Serigne Abdoulaye Lo mi nga xam ne nii moo xalaat projet bu am solo bii indil ko askanu Touba ak mboolem personnel ba nga xam ne ni ñoo fa nekk di liggéey taxaw nañ temm rek ngir tàllal loxo ñi nga xam ne ni ñoo di askanu Touba ak li ko wër jàppale leen ci seen wér-gu-yaram Mouride TV nag ni mu koy defee yëkkati na ay jéegoom doxantu fa dem foofee nga xam ne moo di baki 18 safar waa kër Serigne Abdou Khadre Mbacké ak ay waxtaan yu yaatu. ci Lo mi nga ni mooy promoteur projet bi lan moo tax mu taamu dëkk bu tedd bi di Touba taxawal fi bërëb bu am solo bi waaye lan ak lan moo fa am ci lu ñuy faj ak naka lañ fas yéene taxawoo ñi nga xam ne ñoo fa ñëw ngir saytu seen wér gu dinañ ci déglu ñi nga ni ñoo fay liggéeyee kon duñ def lu ak ba. clinique di safar waa kër sëñ Abdou Xaadar Mbàkke maanaam euh, clinique bi biñ ko ubbee yàlla bi ñu ko ubbee ci semaine bi nga xamante ni moom moo euh, sës ci màggal yi moom mooy dama amoon ñaar seet bi ma amee ñaar naa ci ay traitement yu bëree bëri bëri daal mais wax yàlla ñoom li ma wax mooy ñaar seet bi ñu jël donc loolu moo wax bi demee na laa doon Dakar bi ma ànd ak sama benn jarbaat moo wax ko fekk la dëkk baa ko professeur yu bare bare booy la nangu mais yàlla defoon na jëriwut ñoom ay ñoom ay traitement mais jëriwu ko am suñu yàlla ku ñu wax Alioune Badara Thiam bu hôpital Dantec moom la ma booleel ma demee mu ne ma dangay def da ngay da ngay da nga koy opéré ma ne ko ah est-ce que wóor mu ne ma amul benn problème waaye ma defal opération bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy def tamit alhamdulilah ci ren sant yàlla bi ma génnee tamit jour bi yow ak président dem nan dem Touba ñu liggéey Serigne Touba tuñ ci dëkk bu sell bi ñun dañuy daal di d'accord na yàlla woon ba yéen laa jël appartement bi sama kër bokk sax daal nar la jox mais ginnaaw bi ma dikkee Serigne Touba bi nga xam ne moo yor denc wan ñu denc bi nii bi ma dikkee borom kër gi ñëw fekkee ne mën nga koo jënd te amul ko ci amul daal sa daal yow mën nga ko problème yàlla woon ba dikkee tamit ma tuba moom ci kër gi te jënd kër gi daal di woo président dem ñu ñëw daal nañ ci en ligne Serigne Touba ñu d'accord yaa di ko ne suñu autorisation ñu tudd wàllu ko nga soxna Mariama si ma léegi di moom tamit mbokk la wax di yàlla bu baax la bokk am na suñu ma njëkk a indi waaye comme ni ma ne damay liggéey suñu tubaab damay tànn yi may dugg ci liggéey bi indi na ma nag sage femme indi na ma ay infirmiers yu bëri mais bi ma gisee kanam moom laa ñëwee ma doog a def hospitalisation yàlla moom mu génn bi mu génnee tamit ñu ngi ci fas yéene liggéey suñu tubaab waaw ah, ñu ngi ci ànd nag ak ay kilifa tamit nag ñu ci ak yenn kilifa yu bëree bëree bëri waaye saw sa mooy man maa amoon neesiat yi li ma ko fajee nag ma ne leen nag ñooñu nag déplacé ñu Tuubaa di fas nit ñi man moo ma gënal am naa yéen ndax man am naa moyen bi sax dem Dakar moom dem faj man naa moyen bi dem Europe dem faj mais am na ñu yore ñeent saytu wala ñu yore lu mel ne AVC ñu déplacé bi nag dem ba Dakar di faj bi ñu indi leen yaakaar naa prévisions yi jàpp naa ne loolu liggéey Sëñ Tuubaa la ma am ci yéen bi moo tax ma gën liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkkam bi moo sabab suñu def kii nii fii. commencé bu ko def fii ñëw ci clinique 18 safar ñu nekk benn clinique paramédical la nga xamante ni dañ ci ànd ak en collaboration avec. yeneen yeneen euh, fajkat yoo xamante ni buñ demee suñu waxtaan la ci biir dinañ ko gën a leer. waaw mun na dem ñuy xaar di wax jigéen ñi fii am nañ consultation prénatale maanaam danañ fi def ay visite danañ fi def ay accouchement danañ fi def ay suite de am na planification familiale danañ fi def échographie am na biologie maanaam analyse jigéen ñi jigéen ñi danañ fi def loo loo bëgg rek. am na fi nga xam ne jigéen bu xas ba ñëw rek maanaam sa wàllu wér yaram dañ na ko toog say na ko ba yàlla may na sa jàmm ñu topp sa doom mu def ay vaccination ak ay suivre ko ba ba yàlla may leen seen jàmm ñoom ñëpp te duñ am benn duñ dem fenn lépp am na ci clinique bi. waaw lépp lépp loo xamante ni maanaam tawat doomu aadama la rek clinique bi da ciy yëngu dem ci ba dem ci ba dem ci laaj am na ay spécialité yoo euh, xamante ni clinique bi nekk na en collaboration avec d'autres personnes ay professeurs comme professeur Dem bu euh, hôpital La Dantec cancérologue la y a aussi un neurologue ba nga xamante ni moom it dina ñëw intervenir fii nii euh, boo xamante ni moom it day def consultation en plus am na beneen pédiatre ba nga xamante ni Albert Royer la nekk professeur la moom it dina ñëw fii pour def prestation donc loolu yëpp c'était juste pour

di def seen échographie di def seen biologie seen analyse su ko defee loolu lépp bu ñu ko defee yàlla rek mooy xam mais yàlla mën na leen mucc ci jàmm ñu dund ba am doom ci jàmm seen seen doom nekk ci jàmm ñoom tamit ñu nekk ci jàmm jigéen bu wér dafa war di ñëw hôpital dafa war di lekk bu baax dafa war di noppalu dafa war di tëdd dina am. conséquence yu rëy la conséquence yu rëy ci ndax malade ëmb dafa bëri dafa sensible ba pare dafa bëri ay xeet yoo xam ne moom day ko toog ba nekk à terme nga doog a dem hôpital plaisir dégaluñu ko kenn nga ñëpp ñoo def seen plaisir comme ni mu waree incha allah nit ki bu jëlee grossesse donc daanaka mooy trois premiers mois yu nekk yi daanaka mat esal bu du du kii du dëgër mooy du soldat yu gudd mooy du di di dox dox bu bëri di voyage voyage bu bëri di dem di yéeg ay charrette comme tubaab yi di moytu yooyu yëngu-yëngu yu bëri soo ko defee ba mu bi defee yàlla mën na la moom ci musal lépp la mën a lekk ba mu des bu naan café café daf ko war a éviter ataaya ay xeetu tux xam nga bëriwul tuuba sax yooyu dañ koy wax sàngara ak yooyu yëpp amu fi mais dañ koy cité di recevoir ay asthmatique yoo xamante ni dañuy commencé di sonn ci ci ci ci période parce que lan la changement climatique bi moom moo koy waral donc ci loolu noonu dañuy joxe ay conseil surtout ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñoo di def wala yenn xeetu parfum yi nga xamante ni ñu ngi koy utiliser parce que asthme dafa nekk na nga xamante ni àndul ak cuuraay àndul ak ay ventilo àndul ak yooyu en plus de cela surtout puisque changement climatique day am changement climatique boobu noonu maanaam dañ euh, dañ dañ ci war a bàyyi xel bu baax baax baax yi nga xamante ni ventilo yi ak yooyu donc loolu daal laa amoon lu may wax surtout seen asthmatique ñu it ñu moytandiku yenn cuuraay yi nga xamante ni ñu ngi koy utiliser ci période sedd mais clinique bi dafa am particularité parce que c'était juste pour compléter maanaam kat bi nga xamante ni moom moo am fii Touba parce que Touba kat dañuy gis dañuy gis ñi nga xamante ni maanaam dañuy jógee fii di dem ba Dakar pour faju te loolu noonu moom maanaam moom mooy suñu raison d'être fii maanaam képp koo xamante ni am nga jafe-jafe ci wàllum faj comme ni mu waree ci ni ni nga ko bëggee ci biir Touba nii nii loolu nag moom moo tax ñu def en collaboration ak ay ay de médecine nga xamante ni ay ay ay docteurs yu mag lañ surtout ci seen wàllu tool benn neurologue benn cancérologue ak benn pédiatre nga xamante ni dinañ complété bu baax a mais paramédical suñ parce que dafa am benn xamante ni moo fi nekk di di piloté liggéey bi que clinique souvent gars yi ñuy wax mais ñun li nga xamanteni ni ci la ñuy accidenté du nekk comme par exemple euh, séerété bi mm-hmm. mais qualité de soin bi nga xamanteni ni lañuy jox patient bi mm-hmm. en plus ci li ñuy euh, gëna gëna gëna insister manam hygiène bi mm-hmm. di ngeen visiter logo yi pour xool ngeen gëna xam euh, réellement ñun li ñuy wax lan la parce que fii dañ fi ñëw pour liggéey seen touba kuy liggéey seen touba da waroo bàyyi kenn maanaam da nga war a fexe ki nga xamante ni dafa yor 1000 francs ci poosam wala 2000 francs ci poosam bu ñëwee am fi bi nga xamante ni maanaam noonu la tolloon keneen ki nga xamante ni yor na au delà de ça aussi bu ñëwee ñu euh, defal ko li nga xamante ni maanaam la bëgg comme ñu poosam toll parce que médecine moom moo demee noonu ku nekk ak sa mais ñu bàyyi sant bu baax di leen te di woo waa surtout euh, côté bi nga xamante ni maanaam foofu lañ féetee jàpp naa ne

poste santé yi bari na fi hôpital yi bari dama yaakaar ne bu ñu xoolee sababu lii moom nga xam ne lii moom feebar moo ko indi jàpp naa ne doo mën a bëree bu na ci dëkk bi loolu te man maa man maa feebar wax dëgg yàlla moo tax ma dem ci dem wax dëgg yàlla kon nag kuy dugg tamit yàlla na yàlla nga ak njër rek ak dëkk lu mel ne professeur dem dana fi ñëw hôpital Dante professeur Thiam Aliou Badara Thiam hôpital bi am na pédiatre bu fi ñëw ku ñëw Assane bi Albert waaye moom su moom ci kër bokk dana ñëw vendredi bi ñëw incha allah dana commencé liggéey préfet itam programme jour ren bi bu soobee yàlla incha allah bu ñu jëlee rendez nu fi ñëwee jour bi ñëw loolu bëgg daañu ko def incha allah. amuñu ci dëgg sëñ bi leen moo ko yor nag amuñu ci benn jafe-jafe yi wax dëgg yàlla am na sax ay lu mel ne suñu xarit wax na nañ bokk yow liggéey bi mais man maa ngi xam ne nan leen commencé ñun leen ma nekkoon dërëm kenn ñu nekk ci muy kër gi sëñ bi moom moo ñu ko dox wax dëgg yàlla moom moo ñu ko dox am na yenn xaaral yu dugg nañu xam ne yenn lu mel ne ay scanner rek yooyu yëpp pour maa ngi xam ne partenaire yi wax ak ñun mais nag boobu rek ci jaay li ñu def daal suñu borom bopp rek kenn fi taxaw nañu ba tànn fi dërëm la jox ma ci dara waaw wàllu matériel bi waaye jëmmi kër gi moom man maa am ñu sama xaalis moom sëñ bi ko yore ñun moom ngay def rek sëñ bi lañuy jiital mu moom daal fas nañu fu dem te man fàttal daan ma dem ndax fekkoon sax ñu la jëm ci wàllu santé mais dañu ko waaye li sawase daal mooy ci façon bu ñu defaat ko jënd baaxul incha allah